daaw da Ndoye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Soxna Ndeye Comba Moreau. voilà Daouda Ndoye nga bokk ci coalition Dundu actuellement nag naka la campagne électorale bi demee seen côté est-ce que yéen a ngi ci terrain bi. waaw ñu ngi si terrain bi di sant yàlla ba ñu yàlla mayee ñu fekkee ko di gërëm sénégalais yi nga xam te ne nii góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi du euh, déglu ñu leen di yóbbu suñu ay kàddu di leen suñu ay xalaat si ni nga xam ne nii bu ñu nekkee si euh, assemblée nationale bi nga xam te ne nii mooy pencum ndaw réew ñi ñun dinañ ci indi ay saafara si nga xam te ne nii ay jafar-jafe lañ donc ñun ñu ngi wéyal suñu ay campagne defuñu ay meeting comme ni ko gars di gisee parce que meeting daanaka xew na da dajale ay nit ñi fa nekk ak ñoo defuñu caravane wala boog buñ koy def tamit tuuti la waaye dañoo wàccee suñu équipe yi ne leen nañ dem Sénégal sénégalaise bu nekk ñu fekk ko këram saafonteeg moom laayanteeg moom biir euh, weccoo ak moom xalaat parce que nit ki mënoo koo saafaral ca dégluwoo ay xalaatam euh, gis nañ nag ay caravane yoo xam ne dafa mel ni xuuxalaate lay nuroo wala tiitalaate nga bëgg nit ci voté la nga nga nga yor ay ngànnaay wala sol colin boo xam ne duñ la ñeme euh, dund moom du defee noonu dañoo privilégié dem Sénégal bu nekk ñu seet la fi nga nekk si marché bi jaaykatu gerte bi waxtaan ak yow wax leen li ñu fas yéene ak yan mbébét lañ am ba seen programme bi ñuy def seen dund dina gën a ay da yéwén nekk dund boo xam ne bu jàppandal la. mais euh, daaw est-ce que yéen euh, lan ngeen gën a privilégié meeting yi euh, visite de proximité yi wala caravane yi. waaw comme ni nga ko waxee rek ñun euh, visite de proximité yi lañ gën a privilégié ragal nañ nag bu ñu yàlla leen dam mën nañ bett ñu bari ndax euh, li ñu jot a seetu seetlu ko mooy ñi euh, politique aju kujje yi demuñu ci nit yi ndax dañoo jàpp ni seen titre foncier la nit yi daal seen xalaat amul solo ñun nag comme que seen xalaat am na solo moo tax dañ leen di fekk seen ay kër. di waxtaan ak ñoom di wécc ak ñoom xalaat xam laan mooy seen ay jafe-jafe xam lan mooy seen ay mbébét fas yéene tënk ko tënk boo xamante ne nii bis eh, bu ñu jëlee donc euh, assemblée bi am majorité parlementaire wala am benn groupe parlementaire am na ay coppite yu am solo yoo xam bëgg nañ indi ko ci ci wàllum njàng bi ak njàngale bi ci wàllum éducation bëgg nañ indi tamit ay coppite ci li nga xamante ne nii moom moo jëm ci dund bi sénégalais bu faju wala bu feebar mën a faju bëgg nañ indi ay coppite ay loi yoo xam ne dinañ ko tëral si minimum minimum revenu minimum de subsistance maanaam benn euh, koppar boo xamante ne nii dañ koy def si gafaka sénégalais boo xam ne judd nga nekk nga sénégalais te lool tamit wax nañ fan lañ koy jëlee ak ñaata lay doon ci koppar ba sénégalais bu liggéeyul sax mën a am benn revenu boo xamante ne dina la permettre nga bañ a yalwaan ci mbedd bi euh, te loolu liñ koy defee du leneen taxe boo xam ne dañ koy teg ci pétrole bi mu nekk ay xalaat yu xara la xalaat yoo xamante ne nii yu la yoo xam ne bëgg nañ ko yóbbu assemblée def ay proposition de ni député bi lan mooy liggéeyam mooy mu proposer ay loi waaye tamit mu saytu euh, nu action gouvernement bi nguur daal ñoom jël nañ nguur gi nañ bàyyi opposition bi am benn majorité parlementaire bu confortable boo ko defee ñu indil leen un peu euh, la rupture ñu indil leen la contradiction bu ñu indee lu baax ñun ñëpp ñu bokk de bu ñu indee loo xam ne nekkul ci intérêt askan wi ñu bañ assemblée nationale noonu la war a tëddee waaye pas ay député yoo xamante ne dañuy nekk ci li leen neex ay député yoo xamante ne nii euh, dañuy sànnante xeex ak di dóorante nekkul loo xam lu rafet la suñu image nekkul lu rafet suñu démocratie. voilà Daouda est-ce que yow mbiri ni muy demee nii sa xel dal na que élection euh, yii le 17 novembre dina nekk élection yoo xam ne dina am si dal est-ce que jàpp nga ni condition yëpp taxaw na pour ñu am élection yu dal yu normal ah ñun en tant que acteur politique euh, kawteef si koo xamante ne ni da nga nekk euh, di politique ba pare nga nga nga ngay xas sa réew Sénégal mooy suñu Sénégal Sénégal mooy suñu gaal te gaal gi moom ëpp na ñu nekk ci di ko bët ñu ngi njoxtu bu rafet rek donte gis nañ ay gàllagoose ak ay gàllankoor yoo xam ne am nañ ko si doxalinu réew mi ak si doxalinu élection bi jàpp nañ ko jàpp bu gaaw tas assemblée organiser ko organisation boo xam ne am nañu euh, njoxtu ni xëy na lépp mënut yemb waaye de manière globale malgré incident yi nga xam ne ñi ngi am ñi ngi rafet njoxtu ba tey ni mbir yi dina demee nii comme ba nit yi di déposer liste yi leen déposer tey tamit ñu dem voté si jàmm ci bis ba euh, coalition dund yàlla defal ko ndam. voilà ñu laaj la aussi si beneen ponk bu am solo lan moo waral euh, ñu war jox majorité opposition bi. waaw loolu dama lay delloo rek ci wax benn kenn ku fi nekkoon nekk si jamono jooju opposition moo mel ni euh, ki ma bëgg a wax du jëwriñu Euh, ministère yi muy mosieur Ousmane Sonko moom day ba mu nekk opposition nee na ëpp na ñu jël opposition bi jox ko ki nga xamante ne nii moom moo nekk maanaam parlement bi jox ko ku nekk au pouvoir nee na nguur gi daal ganaaw ñoom dénk nañ leen ñu doxal dañ leen war joxal opposition bi ndax ñoom ñu leen di saytul li ñuy doxal bu ko defee euh, ñu doxee ñaa ngi tànk am équilibre. waaye li ñu seetlu te li ñu tiital mooy fi mu ne nii ñoom si seen bopp dafa mel ni dañoo changé discours parce que dañoo commencé tiit gis nga tas nañ assemblée <coughs> ne ñoom dañoo soxla majorité confortable te ñoom ñoo ko yeyoo li ñu bëgg doxal ñu doxal ko nit nag boo ko joxee bopp doo wàcc lamine certes waaye boo ko joxe bopp tamit baax na nga abal ko ay bët wan ko fu muy xool soo ko defut boo ëllëgee mën na laa yóbbu foo xam te ne nii du la neex. donc ñun li ñuy wax ci loolu rek mooy opposition daal moo war a jël euh, assemblée boo ko defee liñ daloon si nguur gi weesu dootuñu dal benn nit boo xamante ni danaan député yi samay député lañ lu ma leen def loolu la ñuy def su ma leen waxee bàyyi leen ñu bàyyi waaye ñun ñu ngi wax ni ñooñu war ñoo nekk député benn nit wala benn président ñu ngi a nekk député boo xam ne député du peuple la doon. Mhm. Euh, fitna bi ci élection bi gis nga quelque jour rek fitna yu doy waar daal di am surtout ci diggante Pastef ak euh, coalition Sàmm Sa Kàddu bu baax Barthélémy Dias naka nga gisee fitna yi ak kàddu yi nga xam ne Abbas Fall yëkkati na ko ñëpp di ko coow. ñu ngi koy ñaawlu di ko naxawlu ba ndax euh, am na loo xamante ne nii <coughs> rafet <coughs> boo jiitee lii dëgg mooy da war a joxe exemple boo jiitee lii dëgg mooy da ngaa war a dajale woo féewale nga xam ne da ngaa war a tëddee ndee seex ndax ñëpp nga jaboote ku jabootee ñëpp nag euh, nekkul njabootam bi mu jur rek la war a saytu waaye ñëpp la war a bokk yemale di dem si élection nga nekk parti au pouvoir nga am ay kàddu yoo xam ne ëpp na sax ñu tuddaat ko fi muy kàddu yu ñaaw kàddu yoo xam ne du du jàmm kàddu yoo xam ne mën na yëngal askan nga bëgg euh, tey nga def caravane ñoom ñu am euh, jàmm ñuy fàttali nag loolu yàgg na te loolu euh, mosoon na daal benn député bi ñu Aliou Dembourou Sow mu jur fi coow lu rëy am ay kàddu yu mel yu ni mel yu mu waxoon mu nekk loo xam ne du nekk kàddu boo xam ne dafay màggal suñu démocratie. démocratie daal mooy ku ne da nga yor sa cuglu buy nga dem si askan wi ñaan leen daggan seen baat ne leen dama bëgg ngeen fal ma <coughs> loolu boo ko defee yàlla mën na la defal ndam waaye am na yenn kàddu yoo xam ne bu ñu ko déggee du indi lu dul tiitaan tiitaang ak njàqare ñi ngi ñaawlu nag le fait que auto autosaisir wul euh, maanaam parquet waxut ci dara mu mel ni dafa am Sénégal boo xam ne Sénégal ñaay bopp la te Sénégal Sénégalu ñëpp la ñëpp ñoo bokk yem si devant la loi bu amee kenn ku wax wala def loo xam defu ci penc bi dañ kaa war a teg si ñu convoqué ay acteurs politiques ak ñoo xam te ñu nekk maam de société civile si tënk daal ak fi may daanelee mooy. Mhm. ñoom newoon nañ dañuy indi rupture kat si li nga xamante ne fi nekkal. nekk nañ ñoo xam ne bu leen soppee wala mu arrangé leen ñu ñu wax ay baat euh, seetlu dara si li wax tey ragal nañ li daloon nguur gi passé moo leen nar a ñu laaj la aussi Daouda si euh, lépp bor bu bees bi nga xam ni Sénégal lépp na ko ñu xayma ko ci cent quatre vingt et un euh, milliards gannaaw coowal eurobon bu quatre cent cinquante milliards naka nga gisee mbir moomu. mu nekk lu yéeme parce que xam nga nekk opposition naan lépp dafa bari Sénégal li muy nii fan la ko dugal. ay compte saytu nañ leen gis nañ ni def nañ fa mille milliards njort nañ ni li ñu waxoon fond Covid dañ ko luubal lépp bu bari gi yëpp kenn leeralul ba léegi fi nga xamante ne foofu lañ def xaalis bi lépp gënul parce que lépp boo demee ba def ko mooy ñàkk nga pexe waaye boo ko defee tamit li gën a am solo mooy nga xam fan ngay dugal xaalis bi hmm. au delà de lépp bi. ñoom laaj nañ leen ñu ne amuñu programme ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur bi ba mu yàgg ñu ne am nañ programme ñu génnee ko fan yi ñëpp am yaakaar waaye ba léegi leerul ci eh, programme nan nañ koy financé fii ak juróom fukki at yi fan la ñuy jëlee koom loolu nag moo ñu utile ñoom ñun ak waa coalition dund ñun coalition boo xam te ne nii eh, bu nguur gi defee lu baax ñu gërëm bu fekkee ne dañoo def lu defut ñu ne leen fi ngeen teg seen tànk wóorul wala du noonu. moo tax président Mouhamadou a Kane génne woon na benn bataaxal wax clairement ni ñoom seen programme bi kat ci bataille des lañu la ñu war a demee pas bataille euh, muscle wax leen seen programme bi kat benn it la si def même donte baax na parce que am na vision waaye vision bi kat dañoo wax sénégalais yi fan la ñuy jëlee xaalis bi. bu fekkee nag yow ki la yaakaar moom nga yaakaar jafe-jafe dafay am sénégalais yi ak entreprise yi nguur gi lañ yaakaar nguur gi yaakaar leen si si impôt tàggat ak day daal di xaat dikk waaye liy mooy ñu teg lu mel ni lu bees. ay taxes yoo ne taxes yu bees la yoo ne dina permettre ñu def lu mel ni revenu minimum de subsistance sénégalais woo koo am ñu jël taxe euh, pétrole bi nga xam ne ñun ñoo ko moom ñu def si ay taxes yoo xamante ne nii balaa ni di ko dem jaay dina am sénégalais bu nekk loo xam ne dina dugg si poosam dina dugg si gafakaam bu ko defee sénégalais mi mën a dund leneen donc ñun ci loolu lañ nekk ci loolu la ñuy dox te loolu la ñuy proposé nguur gi ndax ñu ak ñoom dañu ay noon euh, ay adversaire politique lañ Euh, bu fekkee ni seen vision leerul ñun mën nañ leen compléter te ñun mooy loolu mooy suñu gis-gis bu yees ci Sénégal. Hmm. ñu ngi lay jërë euh, remercier bu baax a baax Daouda Ndoye ci tontu bi nga xam ni euh, tontu nga ko suñuy laaj. maa ngi leen di gërëm di leen sant. voilà c'est un plaisir. voilà may fàttali ni Daouda Ndoye yaa ngi bokk ci coalition Dundu jërëjëf Daouda. jërëjëf Ndeye Comba.